أحسن الباقي من الشيطان في كل مجلس وفي الأوطان حبادة ابتدأت بسم الله وهو كفاني ذوي الملاهي وجهت كل الحمد والشكر للمالك الرحمن والشكور صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء وشكرته المقدمات ربيا washarax biha sudura man taxallamu bi bihi laa tax taxtarihim sulamu barkeb Sëriñ Tubaa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi waa réew ak bitim réew mboolem ñi ànd ak nun ki sunu page YouTube universel Serigne Saliou sàmb moom Serigne Béthio te ànd ak nun itam ci sunu page Facebook dellu seetu nenu ki seen jotaayu bopp bii nuy ànd ak yéen talaata bu jot ci waxtu wii di tadabburul qur'aani wal xasaa'idi di leen waxati asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. noo ngi leen di jëfal nag te di leen sant bu baax ci wéy gi ngeen di wéy di abonné ci paas yi ngir di ànd ak nun jotaay yi te kiy wax taxut waaye ki muy wax ak ki li muy wax tax yàlla na nu sëriñ bi boole nangul waaye noo ngi beral nag ay jaajëfal ak i cant ak i ñaan jëwriñ Babacar Samb moom sëriñ Béthio ci Atlanta ci yitte ak pëstéef ak jéegu yi muy def saa su ne ci yaatal liggéey bi ak tisaare ko ngi jëmbi sëriñ bi yàlla na ko sëriñ bi fay te dolli ko taxawu te dolli noo taxawu nun ñëpp ci barkeem ak yërmandeem jotaayib émission tadabburul qur'aani wal xasaa'id yi nag tey daa ñëw ngir settantal yaari baat ci biir alqur'aan di yaari baat yoo xam ne nag ñun ñëpp mokkal nañu ko ñun ñëpp miin nañu ko waaye yaari baat la yoo xam ni la mu làmbool lépp ci ay maxnaa kenn ku ko mën a xam ko amut saa su ne rek boo liggéey bu nu ci yàlla dool leenu àndaat nafaraat ci lam nu ca dolli nun ñëpp ci yërmandeem ko baaxam te mooy la in shakartum la azidannakum mu yaari baat yoo xam ni du aaya waaye mi biiru ci aaya aaya baa ngi ci suuratu ibrahim alayhi salaatu wasalaam tolloog aaya neuf suñu borom di wax ni wa istazanna rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna hazabi la shadid sun borom di wax yonente mi alayhi salaatu wasalaam ne ko fatalikul ba sa borom digele ba sa borom digle sa santane borom ci wax gum wax ni mom yalla giñ na ci magam gi ne ndem sant nan ko mo ngi giñat ci magam gi ne dana nu dolli muy xéetu waxin wo xamni nak gisun ben xéetu jaamu yalla wo xamni sun borom digle nako di ca dëeli aw yiw baa mu cay dëeli aw ndolleen ba noppi waxee ca waxin wu ni mel day mel ni moom rek la ko beral loolu nag nga di ca njëkk a seetantale ni kon xeetu jaamu yàlla googu di ak cant dayoo ba ko borom bi jox subhaanahu wa taala amul genn xeetu jaamu yàlla gu àgg foofa waaye xeeti jaamu yàlla googu di ak cant it muy féete kaw ci xeetu jaamu yàlla yëpp waaye day làmboowaale mboolem xeeti jaamu yàlla yëpp te bu duggee ci biir waxtaan wi it dana gën a leeral loolu ndax yaari baat yooyu boo xoolee suñ borom ni mu màggee ak ni mu tedde ak ni mu moomee lépp te sañ ko kooku de xam nga ni lum nu bëgg a wax moo xam lu muy dëële la ba lu muy digle la bu nu ko waxoon te boolu wuccee ngi nit ku xam dara ci yàlla war koo gëm ndax wax dallaahi laa yuxlifullaahu lmihaad yàlla lu mu wax du deñ te du dëële lum dul def waaye su tànnee waxin wu ni mel muy giiñ ñaari yoon ci ak màggam danoo bëgg a wan dayab lim nuy wax ak fam ko toll waaye danoo bëgg a xen mem loo lim nuy wax ba gën caa góorgóorlu ak fonk ko ndax laam ñaari laam yëpp laami xasmu leenu ci grammaire la giiñ naa ci sama màgg gi ne in arafu sart la ndeem in shakartum ndeem jaar ngeen ci cant gi ni ma ko waxe la giiñaat naa ci sama màgg gi ne ku ne xam na ne bu ñu woon la asi dakum dana jub ci waxinu arab ku ne xamne bu ni won la asi dan kum dana jup ci waxinu arab waye daa wax nu gëna dis lolu gën ko kawé moy la asi dan nakum nga xamne da daa nun gi ñi xam garamé lolu lañu tuddé nunuk tawkid waye nunuk tawkid tawkiit tasxiil nunuk nuunuk amna amna, nunuk nunuk nuunuk tawkiit amna am na man yalla ki sama mag gi ne amul werante ne giiñaat sama mag gi ne ko ma sante sa deug deug dina la doli dinaa la doole ne foo ko déggee weesu nañ dinaa la fay ndax foo déggee ku naan dool li ma daa am lum la njëkk jox ndax ku joxee gut dara diisu ko wax dolli ma fu dara nekk gut it diisu fa laaj leen dañ fay laaj kay mu ne fa kon ndolleen loola moo lay wan ni pay ga moom waxiisu ko ndax man jaa abil xasana fa lahu xasru amsaaliha nixmatan min hindina kazalika najzi man shakara waaye dana weesu ak ndol ak pay waaye ñëw ci ndolleen moo ne yàlla day am na foo xam ne ci alquran ki suutu fatir bi muy ci ku jàng alxuraan boole koog di julli tey joxe ci sa alal ji la yàlla wërsëgal ci lu nëbb ak ci lu feeñ nee na na nga xam ne kat dangaa mel ni kuy def commerce mu ab perte dootul am te yàlla dana leen fay lam leen ca dëële ba mu mat te dana leen ca dolli la ko soob ci ngëneelam ndax moom yàlla mooy jéggalaakoon bi mooy cantaakoon bi mooy nangaakoonu jëf bi foofee day wax na ba yeggal waaye andiwu fa benn baatum ngiiñ indi na inna lasina na kitaaballaahi wa aqaamu salaata wa anfaqu mimma rasaqnaahum sirran wa xalaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabuura li yuwaffiyahum ujuurahum wa yasiidahum min fadlihi innahu xafuurun shakuur waaye gis na ni ci alxuraan fii rek lañ mës a gis xeetuk jaamu yàlla gu yàlla di dëële di ko dige di ko digle giñ ca ñaari yoon ci ñaari baat muy la in shakartum la asidannakum moo tax yaari baat yooyu Sëriñ Tuubaa mi nga xam ni borom bi subhaanahu wa taala moo ko xamal alquran firilal ko ko boppam baqarali sirral hurufi man katab kawniya waarisal masoni fan katab wax na it na xàllamte ni taawila wa tahdiisi bu ko defee sun borom moo ma xamal arafi alxuraan araf fu ne la muy firi moo ma xamal araf fu ne sekkara ba ca biir itam waaye taawil bi nga xam ne ku dul moom xamu ko man Sëriñ Tuubaa xamal na ma taawil yi nit ki ni ma xamale addis ak i sekkare ma ki mbootam moom Sëriñ Tuubaa moom wax nanu ca mañ Majmuhatul Mubaaraka nanu ñaari baat yi ñu indi tey muy la in shakartum la azidannakum nee na mboolem xeeti xam-xam yépp boo leen dajale woon dugg nañ ci biir ñaari baat yooyu nee na ñaari baat yi taxañ nanu mboolem xam-xam yi am yépp ci ci nëbb yi ak ci yu feeñ kon loolu da nga ci dégg ne ñaari baat yi ku ko mën a xam ba jeexal ko amul saa su nekkee fa la yàlla tollale nga cay xamee bu la ca dollee nga yokkoo ca moo tax dañoo ñëw ngir indi ci kem liñ ci xam ak li xat ci jotaay bi bu nu ci yàlla galaatee la neen nu àndaat ci loolu la sëriñ bi ne wan tawat fii haatayni alkalimatayni alhulumu kulluha nee na yaari baat yi dala in shakartum la asidannakum mboolem xeeti xam-xam yépp suñu borom dëxëñ na ko ci biiram kon loolu danga ci xamee doolay yaari baat yooyu yi boo ko defee kon day mel ni ci biir setantal gi liñ ciy njëkk indi mooy kon lan mooy ak cant ndax suñu borom dana giiñ naa ni su ngeen ma santee sukkuru mooy lan bu ko defee nag ñaareelu tomb bi mooy lan mooy ndolleen kon lan mooy ak cant ak lan mooy ndolleen bu ko defee mu daal di ñëw ci la in sakartum la si dana ko mu yaari baati ngiiñam yooyu sukkuru nag muy ak cant xeetu jaamu yàlla la gu bokk ci xeeti jaamu yàlla yi waaye moo ci féete kaw moo ci gën a màgg mooy jaamu yàlla gi nga xam ne borom ruuxul bayaan yi nee na mboolem xeeti jaamu yàlla yëpp duggaan nañ ci biiru cant xaqiqatan sax ab jaam mënta defal yàlla dara lu dul ak cant ndax la neen loo bëggoon a def ba defe ne def nga ko boo ko xoolee ba xool ko da xam ne defoo ko yàllaa la ko defal ci sa jëmm kon day mel ni ak cant dong nga mën a jooyal jëm ca moom ngir wane sa ngor sa diggante ak moom moo ma mu ne wax bu doo doohu waskuru lahu ilayhi tujaxoon ndax nit kat bu julli woon ba noppi ak haqiqatan xam nga ni eh, mboolem li tax nga mën a julli lépp xéewale yàlla la wér gi nga am xéewalu yàlla kenn ko ne xam na nii ngëm gi nga am ba ngëm ni julli ka des ko war a def nag ngëm xéewalu yàlla moo tax suñu borom ne balillaahu yamunnu aleykum an hadakum lil imaani in kuntum saadiqin ngëm gi bu leen ko bàkkoo ndax du ngeen ci dara xéewalu yàlla gum leen xéewale la ba gindi leen ci imaanam gi moo tax gaa ya xeeboon ña gëmut suñu borom dana ne bu leen leen xeeb ndax démb yéen ak ñoom a yemoon waaye xéewalu yàlla wàcc ci yéen daal leen di gën a léeg ñoom ngir daa def ci yéen leeru ngëm كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تحملون خبير taxmaluna ما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله كون illa جيغا ام با ngëm gi جولي دا لا وار ni سن بروم لا war خامني suñu borom la goo نا بو صوبون يالا nga mané bok ci ñi gëm ndax wala sha allah la hadikum ajmahin way li ko soob mooy kenn ku ne moy tan ku ko soob mu def ci yow leeru ngëm afa man saraha allah sadrahu lil islam fa huwa ala nuuri min rabbi leeru ngëm kum ko defalu do ko am ginnaba yit bi nga taxawé di kàbbar di jàng fatiha loolu nga mokkal ci fatiha xéwalug yàlla la am na koo mokkalut waaye taxaw gi nga taxaw di julli am na koo xam ne am na tawat ju ko tee mën a taxaw bi nga sëggee di rukkoo am na koo xam ne am na tawat joo xam ne tax na mënta sëgg bi ngay sujjoot it waxi noppi am na koo xam ne am na tawat ju tax mënta toog waxuma laak nag di sujjoot waaye nga xam ne kon lépp wépp melowoo jëfandikoo ci sa julli rek xéewal la gulasan borom jox moo tax sëñ Tuubaa ni kullu harakatin wa sukoonin min hamillah bépp yëngu ak bépp dal gu doomu aadama def rek ci xéewali yàlla yi la bokk kon mboolem jumtukaay yi la tax a mën a julli yëpp boo ko xooloon ba mu jeex da ngay xam ne la ca nekk xéewalu suñu borom la subhanahu te moo ne de yooyu yëpp bu amutoon ceew ci ak wér itam du tax julli wàcc la da lay war waaye ak façon ba nga koy defee waaye nga gis ni kon niki noonu it koor wér gi ak fekke gi ndax am na ñoo xam ne fekki wuñ ko ba far di woor ndax fa man shahida minkum shahra falyasumhu suñu borom may la ak wér ak fekke ki génne asaka itam alal ji muy génne alal alal yàlla ndax wa aatuhum min maalillahi allati aataakum bu sooban yàlla du ko boole ci ñi am bay am lu mu génne waaye bu sooban yàlla yéen mu boole ko ci ñi am ba noppi te du am tawhiiti génne asaka ndax wallazina yaknisuuna zahaba wal fiddata wala yunfiquunaha fi sabilillah fa bassirhum bi asaabin alim kon nga gis ne kon jaamu yàlla googu it boo ko seetee ba seet ko xéewalu yàlla moo la xéewale ba nga mën koo def niki noonu itam boo ñëwoon ci aj Makka Eh, suñu borom dafa wax ne ki mu war mooy ki ko man te moo ne yàlla dogalul ñëpp man ko kon dogal gi dogal ci yow man-man bi rek xéewalam la gu rëy ndax walillahi ala naas hajjul bayti waaye man istataaha la wax ilayhi sabila kon manuk wér manuk am manuk fekkee ku tal ak dem ak yooyu yëpp ay xéewalam la yoo xam ni suñu borom moo la ko xéewale kon boo xoolee xeetu jaam yàlla goo defee ne def nga ko ba demee ba ci biir da nga xam ne defoo ko yàlla rek moo la xéewale xéewal yu mu koy defee ci yow kon day mel ne ak kant rek nga mën a jooyal jëm ci moom xaarifoona billahi sax dan ni yàlla dimbali la ba nga xam ne cant war nga di ko sant sax ak cant war na ca moo tax ñoom ñu wax ni sukkurun xalas sukkuri moo yëg ni rek war ngaa sant yàlla ba man koo sant jëmmi cant googa cant waraan na ca moo tax ab jaam mën sant yàlla ba dab yàlla ndax wa in taxuddu nixmatallaahi laa tuhsuha kon nga gis ne kon ak cant mooy xeetu jaamu yàlla gi te kaw ci xeeti jaamu yàlla yëpp ëmb xeeti jaamu yàlla yëpp muy sukkuru bu ko defee nag cant nag li tax mu rëy mooy xeeti jaamu yàlla yi nu yàlla digal la ca nekk kat daf nu ko digal way andu ko ak nun sun borom subhanahu wa taala ñaari xéeti jaamu yalla rek lañu gal yo xamni jitu nañu ca ñëk mënu koy gal bi ci ñëk moy cyant gi di sukkuru sun borom mo ñëk doon kon bi motax fo jang ci alquran dang fa fekk kon nak moy ko sax ci di sante rek yalla dafa naka jek dafa sax ci sante bopam sakur aw turam la moy melo la ci mom shakir aw turam la mata wakana wa shakiran halima waaye innahu laqafurun shakur wallahu shakurun halim waaye nekk noonu alhamid moom it aw turam la wa huwa alqanniyul hamid ak inna allaha la qanniyun hamid loolu lépp di firi nag cantkat bi moo tax alxuraan cant gee ko ubbi saar faatiha alhamdulillahi la tàmbalee boo demee ci suuratul an'aam alhamdulillahi la tàmbalee boo demee ci suuratul faatir alhamdulillahi la tàmbalee suuratul kahfi alhamdulillahi la si anzala ala abdil kitaab la tàmbalee suuratul saba alhamdulillahi la tàmbalee suuratu faatir alhamdulillahi la tàmbalee suuratu saafaat wala suuratu suuratu saafaat mi ngi tëje subhaana rabbika rabbil izzati si yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin suuratu sumur noonu la tëje gis nga wa qudiya wa qudiya wa qudiya baynahum bil haqq wa qiila alhamdulillahi rabbil aalamiin te yooyu cant yooyu yëpp yàlla ko wax kon yàlla boppam lay sant nax mooy yàlla ak cant ñeel na yàlla te moom mi waxee yàlla kon ak cant naka jekk suñu borom da koo siq ak boppam ca ba dara xewagut ko koog boppam ci bu dara xewatul muy al asaliya ak al abadiya moo ta nga dégg ñu ne laa yazaalu shaakira mësta dañ di doon aji sant te du dañ mukk di doon aji sant moo tax bokk na ci réyu ak cant suñu borom nag na muy sante canam yàlla ca boppam la kenn xamu ko moo tax baatab alhamdu ak baatab ashukuru ci yàlla ñoo bokk piri ñoo bokk taxawaay ndax suñu borom loolu dee su ko teqantal ci moom lu ca nekk nam yàlla ci jëmmam ja la koy defee waaye bu fekkee ci nun mbindee fi nag ashukuru la in shakartum la si dannakum sukkuru nag da dul bokk ak xamdu boo booba cant day taxawee ñaari xaaj li ñu tudde alhamdu mooy tahmid mooy cant goo xam ni kaddu moo koy def mooy kaddu cant mooy sant ki làmmin Sëñ Tuubaa boole na ko ci bayit lakka sukkuru wa tahmidu yaa xayra maliki ala man lahu sahbun xalaw kulla saaliki ca midaadi ba boo ko defee nag cant goo xam ne kaddu la làmmi na ko wax waaye ay cër jëfuñu ko cant googu la ñu tudde alhamdu googu it war na te ko ko defit am na ngëneel yu kawee kawee ndax alhamdulillah ala kulli xaal kenn ku ne jàng na ko alquran sa ngi wax wa ka daawuda ci waxala alhamdulillah lisi faddalana ala kaseerin min ibadihi almu'minin waxaalaa moo lay wan wani alhamdu sa yu joge aw làmmi na koy wax way shukru nak moy la in shakartum shukru nak moy cant go xamni dañ koy gal dañ koy jëf xol bi da koy yek waye cër yi da koy jëf defin wi nak amna ay xeet ci aw jangalin ci l'islam ndax li tax ñu diko jëf loolu alquran andi na ci ay firnu yu wër bo xolé waaka Seydina Souleymane ba leen suñu borom di soññ ci cant ga te fekk waxoon nañ ak cant muy waxaalaa suñu borom dañ leen jug leen ci wax ji sukkuru laa leen wax sukkuru nag du ay waxi kese lu nuy jëf la moo tax wali Souleymane a reexa xuduwuhaa shahrun wa rawaahuhaa sahrun wa azalna lahu xaynal xitri wa minal jinni may yaxmalu bayna yadayhi bi isni rabbihi wa may yasix minhum xan namrina nusuqihu min xasaabi sahir yaxmaluuna lahu maa yashaau min mahaariba wa tamaasila wa jifaanin kal jawaabi wa quduurin raasiyaatin la ne ihmalu ala daawuda shukran wa qalilun min hibaadiya shakur kon gis nga foofu ihmalu baatam xamal la wax kon cant gu nuy jëf la muy shukru la in shakartum kon jëf la jëfin wi nag borom xam-xam yi wuute nañ ci pirin wi am nañu ne nit day dana yokk ay xeeti jaamu yàllaam yokk ak ak ak ak ay saraxeem euh, yokk ak dimbaleem ci jaam ni muy jublu ci sant yàlla maanaam xeeti jaamu yàlla yoo ful wala ngay jëf ay jëfinu jaam yàlla jublu ci man na fi firi lu ni mel lolé itam am nañ ci ab tektal na yonent Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam sallam bi ayat inna fatahna lak fathan mubina wàccee li yaxfira lak allahu ma taqaddama min danbik wa ma ta'akhkhar wa yutima nihmatahu alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka allahu nasra hasisa borom xam-xam xam nañ ni da tambali yok ay nafilam yok ay jaamu am day taxaw di julli ba tank ya newi du tala lek ka nan ba day mujj du mën taxaw na dañ nan saako bu dara du taxaw borom burdu nee na wa sadda min saxabin ahsaahu watawa taxatal hijaarati kasxan mutrafal adami neen daa mujj jël ay xeer di ko takk ci wet yi ngir mën a dëgër ngir mën a taxaw day jooy ngir ragal yàlla ba bët ya neewi sunu yaay xa isa ne ko waa yow ana looy wutati ci yàlla ba tax lay sonni nii ci aw melo te yow la yàlla ne nangam yow la yàlla ne nangam yow la yàlla ni nangam ci ay tagg ak i maqaama mu ni ko afala akuna habdan shakura xanaa du nekk jaam buy sant boroomam foofu nag kon gisee nañ fi ne ay xeeti jaamu yàlla ci ay jëfin di ko sellal te yàlla tax mënees na ko def jubli ca sukkuru loolu am na ay dalil yi wér ci biir alquran am na ay dalil yi wér ci biir sunna alayhi salaatu wasalaam jàngale bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye itam eh, ci xeetu defin wi lu mel ni nii ko Sëriñ Saaliwu jàngale seen becco ba mu ne ko xeeti jaamu yàlla yëpp ak cant ci féete kaw mu ne ko moo mbàkke luy ak cant mu ne ko cant nag bernde benn ren di tour de ret ñam bu bari te neex di ko séddale do ci am xejjek seen moy do am ku gëna a yeye ku gën a yey da ngay bég yow mi koy def ba nopp jublo bégal ñi ngi koy jox bo noppee nag taxaw ci mbolo mu wax la la yalla defal ba tax nga diko sant defin woo wi itam moy njàngale mi nga xam ne ci la ko mom tek ci mbolom loolu yit lu wér la ci l'islam te it mooy li gëna fess itam ndax bo xoolee sayyidina sulayman mi nga xam ne borom da ko soññ won ba ko ihmalu ala daawuda sukran xam nga ne ci melaw bernde la doon jima defé defee ga da foog ne la tax cant ga melut ba tey nam ko bëggee woon mooy yàlla yow mi koy sant yit war ngaa yëg nii lott nga ci sant ko maanaam da koy jéem a sant te xam ne sant ko dalaa war waaye saa yoo jàppe ni mën ngaa koo sant ci mboolem xéewal yim la defal loola rek day ware ni cant ko du mën a mat ndax yàlla ab jaam lott na ci sant ko nam mate ndax ab jaam dafa matadi saa su nekk rek loo ko sant sant sant xéewali mi gàccaal sa cant xibaatuka lii ahyat sukuuri ya fil kunihi lakkal hamdu yaa fardan taxaalee ci xan sippi ndax ñu baree bare dañoo defee ni bara ngaa sant yàlla ami ami xaalis wala ami million wala ami milliard te xamoo ni yàlla xéewal yim la defal mu ëpp yooyu yooyu da caa dolli ko rek xéewalu yor say bët di xool loolu ku ko yàlla bindaloon facture mënu ko fay xéewalu yor say nopp di diglu am na ñu bëgg a diglu mënuñoo diglu xéewalu yor làmmiñ di wax am nañu yor làmmiñ te mënunoo wax waaye xéewalu yor say loxo loo bëgg jàpp-jàpp ko lu bëgg laal laal ko am na ñoo xam ne faf amuñu loolu xéewalu tànk yu dox xëy rek sa tànk di dox noonu di mànkaka ko ci lu benn jafe-jafe yeewu rek mën a jug loolu lu ci nekk xéewal la goo xam ne ay milliards mënu ko wecc ndax nit yor na ay milliards ba noppi mën naa am manqué benn ca yooya te milliards yooyu mënu ko indiwaat ak ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen moo tax xéewalu gu wér rek amul jaam bi mënu ko sant ba mu jeex xéewalug tal xéewalug fekke xéewalug dund xéewalug noyyi kasaa wa kasaa kasaa wa kasaa kon yàlla ay xéewalam daa wër doomu aadama ci lépp moo tax mu bëgg muy fàttaliku faskurooni askurkum ku lu seetlu doo sant bu ko defee nag Seydina Daawuda ci bir wax ji sayyidina Souleymane dégg na ci ay kin dégg na ci ay kuddu dégg na ci ay mbanaaki bol yu mak wa qudurin rasiyati nak yu melni yoya ba tax mu ne yalla jox ma wa adina sepp ma bern leen sante la ko tey daal ma ci jam ñi ci ci wi ngi leen yorel nako min fil ard ila alaa llaahi rizquhaa nga xamni lola sun borom bëggoon na caa jaar jangale ni jamam ñi mom rek mo leen dundal lolo tax bam wajale ay ati at togg togam ya nga xane bu nit ñi yendo togg jinn yi fanane ko muy stocké di denc bam ba defé ni lu dundal minde fi yor nako bam ne borom bismillah aw jënd rek la yabal wu ndaw wo xane bam ba lan togon ci at yi da ne ko jën ko togn nga ma kat ndax man say ma musa na xey sa borom may jox luma dundé jox ma luma ma sama njabot te bi may ñew kat dama ne ma jëli sama wërsek te andi leen seen wërsek ndax tay ya yor wërsek bi man rek jotuma reg waxuma laa sama njabot kon nak tay xagn nga mako fofa yalla difa jangale ne kudur yalla meunta dundal jam ni kon fofa gis nga ni aw ñam la Seydina sulayman don fësale cant gi Serigne Touba mi nga xamne mo wote woote gu maggi di bisu màggal gi gis nga dani ginar ba ci gilem nga gis na kon ci eh, anamu jëfin wi muy kayfiya bi bernde la indi nga xamne ginar ba ci gilem lu ci way man la wax lolo nak màggal gi lanen lu ci way defit lolo da koy gungé rek ci lu bax waye li nak boko defut lo meuna def magalo. boko defé nak nag moy wi nga xam moom lañ xamee seen béykat waa këram kon loolu mooy sukkuru ci wàllu kayfiya bi euh, sukkuru yi itam yàlla dong nga ko yeyoo alhamdu wa sukkuru mahan lillah ku di yàlla diisu la sant waaye nag manees naa sant yàlla jaare ko ci jëmm loolu it am na dalil bu wér ci alxuraan waaye am na dalil bu wér ci sunna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndax it euh, alxuraan boo ca demee ba muy soññee ci ndénkaan yim mu dénk ci rafetal ci sunuy wayjur andi na ca baat buy wane ni ak cant yàlla dong nga ko yelloo waaye dees na sant nit ngir sant ca yàlla bimne wa wasayna al wasaynaa bi walidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaaluhu fi xaamayni an nuskur li da caa teg wali waalidayka ilayal masir denk na len ngeen rafatal ki seen ñaari wayjur da ne nday na nday ndax mo ëmb coona ci kaw coona juróom-ñeenti weer ta bim imbe itam dañu di topato aka la ka defar ngay tag di tagok sagom ngir yow diirum ñaari ñaari at nga xam ya koy gëna sax bopam te ku ne xam ko ci nday sun borom ni ni ngeen ma sant nak ndax lepp man waye ni ngeen sant seen ñaari wayjur itam wa ak li waali de seen ñaari wayjur wa ila yal masiidu gi mo lay wan ni cant gi ngay sant seen ñaari wayjur sant yalla lay firi ndax la ngay sant ñaari wayjur ya yalla ci jimba boppam moko jaarale ci ñom kon manes na jaarale ak cant ci nit loolu alquran andi na mom ci lu leer sunna si yonente bi alayhi salatu wasalaam jangale nako ku ne xam na ne addisu xutsi nga xam ni xam yu bari andi nako ci seen téré sun borom ni habdi lam yaskurni isaa lam yaskun man ajrati nihmati bayna yadayhi wala xalaa yadayhi am na riwaaya yu wax yooyu ab jaam du sant mukk man yàlla li fi yegg santul ki nga xam ne ci moom laa jaarale xéewali mu yegsi ci moom eh, am na it addis bu ni man man lam yaskuri naasa laa yaskuri laaha am na ñu wax man laa yaskuri naasa laa yaskuri laaha am ñu jiital man laa yaskuri laaha laa yaskuri naasa riwaay yëpp ñëw na waaye foofu it day wax ne ku santul nit du sant yàlla donte am na ci prime xaarifoona yi ku santul nit ka du sant yàlla muy ci wàllu mufrat daa am nit koo xam ni kenn la ku wét ci biir mbindeef yi mel ni nit tëddu nit lool yi beneen wax la moom mooy mooy borom jamono waaye loolu taxumaa ñëw tey ndax naasu dana doon jamhu waaye dana doon mufrat xul onxatu rabbi naasi maliki naasi ilahi naasi naas yooyu yëpp jamhu la waaye nag am naasu dana ñëw doon mufrat allazina qaala lahumu naasu inna naasa qad jamahu lakum ci suurtu nisaa naasu gu njëkk gi mufrat la kon ñi ko firee ni ku santul nit ka du sant yàlla muy nit ki nga xam ne lu waaye jot ci jamono ci loxoom la jaar loola beneen wax la waaye li ma bëgg a wax rek kon mooy taktal la ci manees naa sant yàlla jaare ko ci jëmm am na beneen addis boo xam ne imaamu Bayhaqi moo ko indi mi ngi ci ashabul iman imaamu Bayhaqi dafa wax ni anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama xaala axbarani jibrilu annahu isaa kaana yowma alqiyamati jamaha allahu al awalina wal axirina xaala fa yaqulu li abdihi ne ko ah yow yow sama jaam bi yow sama jaam ji mu ne ko a mu ne ko hal shakarta fulaanan xalaa maa kaana minhu ilayka nee na fa yaqulu laa yaa rabbi shakartuka li anna nihmata minka ilayka ngi dégg bu ko defee nee na suñu borom daal di koy wax ne ko na xam ni kat maa shakarta nii isaa lam taskur man udiitu nihmata xalaa yadayhi aw kamaa xaala addis baa ngi ci Bayhaqi mu andi ko ci Shu'abul Iman nee na yowmal xiyaam suñu borom bu dajalee mbindeef yëpp Jibril la koy xibaar yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam suñu borom dana xool ab jàmmam ba yàgg mu ne ko waaye yow ndax santoon nga diw ci xéewal gi jaaroon ci moom ñëw ci yow jàmm ba ne ko déedéet man yow rek laay sant ndax xéewal gu mana a doon ci yow doo nga la jógee ku mën a jaar daa jaar ci moom rek nee na suñu borom ne ko waaye xamal ne mënoo maa sant mukk cant gu mat li fi yeeg santoo xéewal gi ci kim jaar ñëw ci man jaarale woo sa cant ci moom santoo ma addis boobu imaam Bayhaqi andi na ko muy tegtal bu wér ci ne dees na jaarale ak cant ci jëmm jëme ko ci yàlla waaye pas-pas bi ci wóor rek mooy xamal ni ak cant yàllaa ko moom bu ko defee nag yàlla fa mu jaarale xéewale dees na fa jaarale cant ga waaye yàllale ko yàlla rek bu ko defee nag kon loolu rek dama ci bëggoon andi maam kayfiyab sukkur kon sukkuroo ngi noonu muy jëf ak cant moo tax suñu borom la in sakartum bu ngeen ko defee nag ak cant moom dis ko vérifié boo ko defee ni ko yàlla waxee rek wa in taskuro yardahu lakum fa saxase da koy nangu te nee na danaa la fay naa la ci dolli boo ko defee ndolleen la nag nag sëñ Tuubaa nee na na xam ni ndolleenu cant mi ngi tàmbalee ci lépp lu lay tax a texe nee na ak da koy dolli ci yow kullama yasiidu nee na yasiidu kullama yudxilul jannata lépp loo xam ni day tax a texe rek xamal ni boo santee yàlla loola suñu borom dana ko dolli ci yow nga xam ne kon nekkul ne rek xaalis dong lay doole wala ak wir wala nanga waaye da lay doole ba di la doole lépp lu a texe waaye itam nee na day doole ci gépp fànn nee na dana doole sag boo santee day doole sag mucc day doole say xéewal day doole sa ngëm yàlla day doole sa pas-pas day doole day doole day doole kon day doole ci gépp fànn fi kulli fànnin nee na yaddara ul manakira bokk na ca ndooleen ya sax lépp lu lay tee texe lépp lu lay tee texe maanaam lu lay tax a texee de mooy lépp lu bon lépp luy ab safaan nee na ndoon leenu cant day défendre loola am na sax fu mu ne ndollee na gi da leen di defaral lépp lu yàqu woon ci seen i cër waaw ah, yuslihu kullama yufsit lépp loo xam ne yàqu woon na ci yaram wi ak ci pas-pas yi boo dee sant yàlla eh, ndolleen la nga koy jëlee kon dalay dalay defar di la defal mooy day yokk say xéewal ba noppi di defar say jikko moom ak cant ba noppi itam di la musal ci lépp lu lay tax a dem sawara ba noppi di la yokkal lépp loo xam ni da lay tax a dugg àjjana moo tax Sëriñ Tuubaa nee na képp kuy sant ku nekk jaar nga yoonu àjjana asaakiru ilal jannati waaye képp kuy def safaan ba yi muy ñàkk sant dangaa jaar yoonu sawara moo tax mu ne alkaafiru ilan naari moom la firee ihdina siraatal mustaqim siraatal lasina an'amta alayhim nee na loolu mooy ashakirin ndax minan nabiina fa ulaaka maa lasina an'ama allahu alayhim minan nabiina wa siddiqina wa suhadaai wa saalihin waaye bi muy firi xëy na maxdu maxali wala daalin mi ngi ko firee wal kaafiru kon nga gis ne inna hadinaahu sabila imma shakiran wa imma kafura gis nga ak kon moo tax suñu borom nee na giñ naa ni su ngeen ma sante giñ naa ni dinaa leen dolli kon li gën a gaaw ci nu gëna gaaw ci dimbali nu tay ëlëk gëna gaaw ci defar suñu mbir tay ëlëk moy sax ci akant akant rek so jaxé sax suñu borom dalay defal tawhid ndax dara dut la nakari ci mbég rek ngay sax ndax lepp lu dikkati lu nek yalla nga ci gitt da ngay sax ci diko sante motax la in shakartum la asidannakum ginnani su ngeen ma sante ginnani naa ni leen dolli kon xeeti jaamu yalla gi féete kaw ci xeeti jaamu yalla yi moy sax ci di sante borom bi subhanahu wa taala ku ko def ku ne da nga sax ci am ngërëmul yalla waaye it da sax ci am ndolleenu suñu borom subhaanahu wa taala tey danga mucc ci lépp luy tax a dem sa wara waaye danga tàbbi ci lépp luy tax a texe tey ëllëg te sa diggante sa borom it ak rattax dana ci am kon ñaari baat yooyu lañu indi woon tey dala in shakartum la asidannakum ci kem li nga xam ni moo fi xat ci jotaay bi bu ëllëgee it bundikaatee rek sof ci la neen insha allahu taala lu ci dëng noonu la lu ci jubbaaxu sëriñ bi la ni Sëriñ Tuubaa bëgg ko ni yàlla na ko melal kim bëgg ko ko doon yàlla na ko def wa axiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu